ñëpp daa ñëw ba ci bitti jàkka ji am na mbaar moo xam danaa fees dell waaw bu njëkkoon waaw waaye rek bu mujj bi kuur bi tàmbalee nag jàkka ji fukki na juróom ñett du matu ko ngir lépp di sàmmante ak xàqi couvre-feu bi léegi nag ba ci masque yi yëpp rek ba ci gel yeeg diw ma ci raxasukaay yeeg yëpp indi nga ndax Touba ci kanam ñëw nañ fi indi ko teg ko sama loxo ma jox ko noddukat bi li ñuy raxasoo gel yeeg ba ci eau de javel yëpp doon na ko saata na ko saatante ak moom léegi nag dañ fii ñëw barki démb la njëkk na ñaar ñun fekk ci biir dàq leen ba dugg ci biir jàkka yi ci bundi jàkk ñu jàpp leen ñooñu sax man naa am juum ñun ci jàkka yi wala ba am ñu ne ci rëbb nekkoon di yeesal am jàpp léegi nag bi leen jàppee yóbbu na leen ñun nag bi leen yóbbu gisuñu leen ndax boobu ñu ngi ci biir bi ñu démb nag fekk ñu génn ci jàkka ji ba naaf ñu daal di es suñu kaw man bi may génn ci jàkka ji maa ngi gis oto bi di tourné ci tëli belal di ñëw bi mu ñëw gis naa aw nit wu taxaw ca tëli ba mu romb leen fa jàll kon day mel na jàkk jee ko taxaw na jóg bi mu essayé nag fekk ñuy dugg ci kër gi euh, la am kum jàpp ci ñun muy Ablaye mii nga xam na du dégg du gis léegi bi mu ko jàppee mbay mii ak euh, galas nga xam na ñooy magi kër gi daa di ne nan dem maslaa ak moom ma ci ñu dem biñ ki ko jàpp nag bi mu koy jàpp oto bi egseegul ndax dañoo yebal ñaar ñu dox di ñëw kii dox di ñëw nag moo jàpp kii bi mu ko jàppee da koo dóor bi mu ko essayé da koo bettee ginnaaw dóor la ko def tëll la ko def te ko dóor dóoru ko ngàndaay léegi bi mu ko jàppee ñu dikk daanu kii ka du dégg buñ sañoon dañuy ñaan njëkk ak teraanga ngir nga jéggal ko ngir jëm yàlla ndax boo ko yóbbee ñun ngay sonal bu aajee wax ñooy wax bu aajee wa joxe ñooy joxe bu aajee wa tontu ñooy tontu kon boo ko yóbbee ñun ngay sonal kon dimbali ñu ngir yàlla nga jéggal ko mu xaw a waxante ñun daan nañu dangeen a yarade ko ndax saabun firi lu tax ngeen daw dugg ci kër gi ma ne ko ñi daw dugg ci kër gi dañuy ay nit kii nag da du nit moo tax dawul ndax li jàpp nopp yi moo jàpp xel mi bu doon nite du taxaw te du yeexantal ba at bi di ko fekk donte génn ci jàkk ji nag aggul ci këram kon ci mbedd mi lañ ko jàppee waaye ma ne leen yéen yéen ngi ci yoon ndax yéen ci ci lu waa ngi nekk waaye ñun am na droit ñëw ñaan njëkk ak teraanga léegi nag bi wax ji xawee xumb mu daal di xaw a dépassé wax ji lool wax fa ne da ngeen a yar diku kenn yaru leen xeet yi mel noonu da ngeen a réew naa nga naa ba yëkkati ay sa ba di saaga bi mu nag ba jot ma mën ko yow mii nag kenn gun laa yar ndax ñun dañ laa ñaan ci njëkk ak teraanga waaw wala déet loolu da nga waaw mën naa leen may wala déet léegi nag bi wax ji xëttantee mu ne ma naa nga naa ko yaa ndax ñun jàngal nañu yar boo gën suñu melokaan yi xam nga ne ñun du nekk ci lépp lépp loo xam day waral ay violence xeet yi ni mel nga xam ne ci la wax ji xaw a kii tuuti oto bi daal di si ndax bi mu koy jàpp bi ñuy wax ni wax na la yàgg oto bi doo ko ñëw bi oto bi ñëwee mat fukki wàcce nañ ci bëri nañ lool dañ wàccee daal koy saax-saaxee dugal ko ci biir oto bi mu xëxante ñëw ñu dugal ko ci biir bi ñu ko dugalee ñëw ci mën na naw dal lay yóbbu na dal lay yóbbu man ko man moom doo ma yóbbu ndax defuma loo ma yóbbee ci la jàppee soo mu yëre bi ma soloon lépp da koo xotti ñu xëxante ñoo gars yi nekk foofu di jàppante xeet yi mel noonu léegi ba wax ji bëree nag ñoom ci lañ déplacé oto bi dem ba ci meneen mbedd mi mbedd mu mag mi biñ taxawee foofu nag mbooloo mi génn si ñëpp tasaaroo bu defee fa la cooli tàmbale nag waaye kii bëtam bi gis nga ni nga ko def ñoom ñoo ko dóor kee loxo ba dafa damm dañ koo dóor man mii di wax ak yow sama oom bii ma lay wax nii tey léegi laa ci doo a am jàmm ndax dama ko yóbbu ba mocc li ji ko léegi te maa ngi ak métti xam ma ba xam daa dammam déet waaye dem naa ci jéemul doon ci def ab rajo ngir xam ba xam ndax wàllu yax dafa sensible rawatina ci wàllu ooma yooyu yooyu yëpp di ay blessé yoo xam ñoom def nañ ba cool yi bëri na ba mboolum génn tëli kër Serigne Abass ba kër Serigne Sidi lépp aw nit la ñëpp tàmbale ñëw ñu xam ne nag yëf yi mi ngi bëgg a ëpp loxo ñoom boo fekk ñuy dóorandee xeer dóorandee korfañ ba am na kun ci jàpp am na kun ci jàpp koo xam ne Modou Ndiaye tcag doom ñoom ñu njëkk dóorante ci la njëkk dóor ci bi ñu koy dugal ci oto bi dóor na ko dóor yu met bëtam bi ci biir oto bi la ko dale biñ paree ci moom ci man mi lañ ñëw dóor na man dóor na ma ay liif dóor na ma ay guum sax lañu na ma ay léegi bi ma dóoree ci la ma dóoree ci oom bi bi ma ma daal di gaañ ci oom bi ndax dafa kii ak sëñ bi yi nga xam ne loxo bi dafa dem ñoom yaakaar naa mat nañ 15 war nañoo mat 15 ndax ndax beneen oto daañu ñëw bi affaire yi ëppee loxo beneen oto daañu ñëwaat mooy jiri bi bi ñëwee fekk fi kaar bi ñu daal di taxaw affaire yi ëpp seen loxo xeer yi di ñëw ñoom ñuy sànnante xeer ñuy sànnante xeer xam nga ñaari mbooloo fu dajee ba amatul xalaat amatul waxtaan daanaka jëflante gu mel na te jëflante gaañu mën na caa am ci lañ daal di dóor bala bala fetal yi moo nekk nii ñaari yi dafa rote ci ñoom bii moom xam nga lu mu dóor la pare ñaari bal lañ dóor benn bi ci kaw lañ ko tiré benn bi ci suuf bi ñu tiré suuf nag moom dal nit te xam naa kam dal ci ñoom la bokk waaw mooy sabab bi dafa naan ñoom dañoo ñun dañoo jël ngàndaay dóor ko ci ñoom ñun moom ku ñu xam ne dañu nekkoon ci jàkk ji ban ngàndaay lañ yor loo xam ne daa yónul maanaam waa am na kuñ téye ci yéen wala waaw ci problème ndax ab dongo dana ci daal di di mur bi mu jugee ci kër kilifa gi di dem di ñibbi man maa ngi koy gis da doon da doon leru ci miir bi da doon leru ci miir bi bi mu leroo ci la ko waaj boo fekk na pëcc xoo bi bëri na lool ndax kun gis rek jàpp na ci nga bokk xeerante moom bi mu ko jàppee moo waaj dañoo jëflante dóorante na dóor na ba waaj a daanu suuf police bi daan waaye yeneen ñaar ñoo ñëwaat bett ko ginnaaw dóor nu ko bi koy diri dugal ci yor naa vidéo bi mën naa leen ko avayé ñëpp bi diri ci oto nu ko dóor ba diri ko dugal ko ci oto bi mel na ko yaru ab bahima rek nga xam ne bali fetal yi bi koy dóoree ñoom nee na ñu bali fetal lakk dama seen lan dóor waaye loolu day xeeñ te bale fetel yor naa vidéo yoo naa leen jox ngeen dégg téel li bale fetel wala a li lacrymogène yëpp mën naa leer incha allah waa ah, damaa xamul nag waaye am naa ci njort na yëg na ko ndax non demuñu fa demuñu fa waaye dem nañ ci chef village bi wax ko ko mhm. comme mooy li mu woo préfet waxtaan ci moom lu bëri bëri ban na nag nañu ci daal ba kilifa yi danañ ci jël ay kàddu ñoom moom moo ñu wax loolu moo tax ñu daal di toog jéemuñ ci dara mhm. téewutit waaw doon nañ def ay ay démarches ci wàllu fajri mhm. doon fi jàlle ay ay kàddu ndax ñoom daa mel ne ni mu waxee dalal commissaire bi ba mu wax ci action bi ni mu demee man mi ma mu wax ci action bi waaye bii faram-fàccee daa mel ne wax nañ ne ñoom nangu nañ ne ñoom dañoo indi violence ndax ki dikk na damay ñaan njëkk ak tiraanga saa boo ko gëddee baa nga saa baa nga dóor ko violence bi ci yow la tàmbale kon daal bu dee violence am na ci ñoom la tàmbale ndax ñoo njëkk a dóor kii ci bët man mi dóor na ma dóor na fi ñu bëree bëri te ay guum lañ yoroon ak kii am na ci ñoo xam ne ay a dóor te ko dox nga xam ne daa mat ki ko dóor sax du mag noonu gone la ci ñoom solu tëni nag am na ñaari solu tëni ci ñoom ki ko dóor gone waaye bu doon magum jëm bu ko dóoree fi mu ko dóor ci dox mën naa wàcc ma mën naa am ay problème ay jafe yoo xam ne ci yëf lañ ko dunde te it bu dul loolu am na kon fi jàppee bi nga ko jàppee dañoo nangu téléphone hmm. ba nii jotu ci téléphone bi di ko naan ko fa faaw six mille ngay fay ba tey ñii may waxee jotu ci téléphone tey nag ñoom nee nañ waa koñ bi dañoo xaw a yara di ko xeet yi ni mel moo tax xam naa ñu ñëwee noonu waaye nag juumul xëy na daa nañ fi jaar gone di leen yuuxal loolu lañ jàpp nag